bokki julli ci gannaaw ba nu sant yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ndawam mu tànn ko ci biir ay tànneef noo ngi baal xaq ñépp di baalu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante tey mooy xew-xew yi xew ci yi xew ci jamonooti rek fan yi ñu génn lu yées ñaar fukki fan ku ne dégg na ci biir réew mi ni ci dem yu bari yi tasaaroo di jaare ci ay daamar loolu nag su fekkee dañu koy fàttalante ci biir juma am ci kàddu dana ko gën a yaatal xëy na yii xew ci tëli yi ci penku ak ci sow ci ndeyjoor ak càmmooñ moo gën a jege waaye at mii ak la ko jiitu lépp ak at ma ko jiitu wala ma ko jiituwaat mbooloo mu bari ñu ngi des ci géej gi yàlla na yàlla yërëm ñoom ñépp te def ci xoli njaboot yañ fi bàyyi xolub muñ xew-xew yi mel noonu nag nit mën naa bañ a jàkkaarloo lii waral muy xew waaye su dee ab jullit la su delloo tuuti ci alxuraan dana fa daal di mën a gis diagnostic bi nga xam ne maanaam fax gëstu bi ñuy gëstu wéré digi na ci nit wala ci mala buy dund gëstu yiñ ciy gëstu bu ñu demee ci alxuraan kulib yurit da nga ko ca fekk mu ne wét alxuraan mi nga ñuy wax ne su ngeen demee ba gisatu leen lu ngeen xam nit li ko gën a jaaxal mën naa bañ a doon ak ñàkk ndax ñàkk wuti mën na koo saafara mënees naa xam gis wéradi yu bari yu dal nit ñi waaye wéradi gu yàlla sàkk sàkk na jàngoro sàkk na saafara ca pegg ba soo xam ne ku ko yàlla xam mën na caa saafara ñu bari ba mu des nag dee dee yu bari yu tegaloo moom te ku bëgg a joxoñ ne moo ko def fekk moom bokk na ci ña dee li waral dee gi dana jafee wax dana jafee nettali gannaaw ka ca mënoon a wax dara moom bokk na ci ña faatu nangam moo waral faatu gi dana jafee xam lool waaye ku dem ci alxuraan mën nga caa gis dara alxuraan nee na su ngeen demee ba gis dee yu du jeex wala ñàkk googu ma jëkk a tudd taxaw leen xool seen gannaaw ba xam fi ngeen jaar fan la ndax nee na kat lu ngeen gis mu jaaxal leen rawatina dee yu tegaloo tiifoo xool leen seeni loxo ba xam lu ñu taq lu mu doon lu seen loxo def la seen tànk dox dem ca seen làmmiñ tudd ko wala seeni gët xool ko wala seen ab xol fas ko faw ñu def gëstu bu mel noonu ci biir yaramu nit ki xoolaat ay loxo fii ay loxo la jëfandikoo waaye loxo munta dem bàyyi fa ay tànk xool bay fas ba loxo war a jógit munu caa mucc waaye gët yi nga xam ne mooy xool fa muy dàkk ba di ko jamit munu caa ñàkk mu dellu waxaat ne su ngeen gisee musiba yi tegaloo musiba nag moom mooy am ndab am ndab mag ñi dana ñaanal gone naa ko yàlla na yàlla musal ci am ndog ak ci am ndab am ndog mooy leneen ci kanamam te àggagu ca am ndab mooy lu ko dab ci yoonam faagaagal ko yàlla nañu ci yàlla musal ne su ngeen gisee mu bari kan ngeen koy laaj ñu ne ko xanaa yow subhanaka wa taala it mu ne déedéet lu ngeen gis mu dal leen rek mi ngi mel ne balu tengs bal yu tuuti yooyu ku jàkkaarloog miir bu gudd bu ko ci dóolee ak kattanam bëgg koo lor bëgg a lor miir bi bu ca dalee day dellusiwaat ca moom xanaa mu sànni ko daw waaye bu ko dóoree taxaw fa mu taxawoon te jub loxo fa mu taxawoon fa la koy fekkaat aaya boobu mi ngi nekk suratu ali imran am na fi muy waxaatam ci suratu ruum ne yàqu-yàqu su ne gàññi ñi gaarkat yi xëy di gaar mu ta ticc ñawkat yi fanaanee ñaw mu ta ticc yàqu-yàqu benn gënu caa raw nit ku faatu ndax lu defaru nit ko war a defar ci kaw suuf si huwa anshaakum min al ard wastaamarakum fiha su fekkee nit ñooy dem nag di fi bàyyi suuf si yàqu-yàqu munta féete kaw lool nee na su ngeen gisee yàqu-yàqu yi ne gàññ nit ñi dee ci géej gi saay su nekk nangami fukki nit dee ci géej nangami fukki nit faatu ci jéeri ji nee na loolu kat bu mu leen jaaxal lu ngeen sànni woon la ci balu tang si bu ngeen sànni woon la ci miir bi miir bi delloo si waatal leen ko mosal leen cafka gi balu tang si di saf ba bu ngeen delloo seen kër bu ngeen di sànniti ci am miir xoolaat ko bu baax a baax am na fu ñuy wax itam ci suuratu nisa ne lu nit dox ba taseeg moom fab ko taf ci ab xolam bëgg ko lool fekk ba muy jóg di dem yéene ci rafet la àndaloon na sant yàlla te xam ne loola la yàlla am loola la yàlla di joxe waaye su taseeg ab safaan it daw daw munta daw mu yuuxu yuuxu kenn wàlluwu ko na seetaat boppam loola ci moom la jóge waaye jógewut ci yàlla nee na kenn ku nekk loolu mi ngi ko wax ci suratu al-Ankabut li may bëgg a wax ni nit ñu nekk la leen dal bu musiba may dikk ni ñu koy misaal léeg-léeg rek réew mu waaye dem di jëfandikoo xaalisub réew ma bu ca joxee di jënd ba ca roow lañ koy delloo kenn ku nekk la tolloog la mu def rek mbugal mu toll noonu mooy ñëw yàlla ñu yàlla musal ci li ci kanam nee na amoon na ci jamono ñoo xam ne lañ defoon la war a doon ak payam dëgg su leen yàlla bëggee delloo seen weccat day yabal ngelaw loo xam ne kenn du ko mën a noyyi ndax tàng ak bari jaxasoog suuf ak doj bañ defe ne ngelaw li sawara suy doxal lu mu romb faagaagal ko inna arsalna alayhim xaasiban am na ñoo xam ne daf koy booleeku taw loolu ñu ngi ko gis jamono ji fi mu ne am na ñoo xam ne ngelaw kese réew yoo xam ne bis sa ñëw la tey la ñuy séentu ngelaw lu tudd nangam séen nañ ko muy ñëw ñu foto ko ñu defaraat seeni kër daajaat bunt ya waaye buy agsi bu fiy jógee lu mu fiy bàyyi loolu leen loolu la yàlla téye muy xam-xam bu mu gàddeel boppam subhanahu wa taala waaye ñooña du tax ñu jàngate ca dara dañ naan noonu la war a demee rek naturel naturel moom sax boo déggee ñu wax ko rek delloo nañ ko ci yàlla dañoo nangu tudd baatub yàlla wala taw am na ñooñu it yàlla nee na ci aaya boobu lañ def ak payam mooy yàlla dafa yebal malaaka mu tiim leen yuuxu ca kaw xaacu kenn mënta dégg xaacu yooyee ñenn ñi seen taas yooyee ñu doxe fa dem ko ma faatu ñenn ñu doxe fa yembati ba nañ faatoo nekkatul nit am ñoo xam ne dafa jox suuf ndigal mu xaar ñu dugg ca biir nam defoon xaaruuna ak ñam àndaloon fa xasafna bihi wa bidaarihi al ard wa axadat alladina zalamu sayxatu fa asbahu fi diyaarihim jaathimin am na ñoo xam ne it dafa digal ndox mu jël leen labal leen wa azlafna ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين kon xew-xew yu ñu demee su amee li ñuy jëkk def mooy ku dem këram na ñaanal yàlla yërmande mu wàcce ko ci ñi nga xam ne des nañ ci ndox mi wala ñu des ci tali bi te yàlla may seeni bokk ñun ñëpp suñu bokk lañ xolub muñ waaye nag taxaw seetluwaat aaya bi suñu borom baat yim tëje aaya boobu ma mujj a jànk wa ma kaana allahu li yadlimahum yàlla jo def tegu leen nattu boobu ngir tooñ leen waaye dafa leen a delloo seen weccat rek walakin kaanu anfusahum yadlimuun moo tax xéewali suñu borom di wàcce ba jar fenn fu nekk ñu daje fa nga nañ sant yàlla nañ ko delloo njukkal yàlla nee na xéewal yooyu nit ñoo ñoo tax mu liggéey ko mi ngi nii tiim ñu jege lool fi muy wax ci alxuraan naan bu ëllëgee nit ñi meññeet yi ñu gën a bëgg ci àdduna bis bu set ñu gëm ne bu ñu ko lekkul lekkuñu dara bu ñu demee aljanna moom day jege suuf jege suuf goo xam ne jërut jël échelle di yéeg jërut taxaw ci kaw balcon bi waaye xutuufuha daaniya mën naa toog mën naa tiim ba ci palanteer am muy yër nii mu def nii loxoom rek yootu ko jot ko yàlla nun yàlla boole sa ñooña nee na demagul aljanna waaye xéewal yooye it mi ngi fii ci àdduna jege lool ni ñu koy defee mooy dëkke tuub maanaam jëlale naa sax ci li muy digle moom waaye saa su nekk ñuy geesuwaat fiñ romb ba xam nu mel ndax nee na loo gis nit ñi ñàkk ko rek ñoo ko wutiwut fa mu nekk waaye fa ko yàlla tegoon moom fa ba tey te mën nañoo fexe nag ba dog yoon wa ca jëm mooy suñ gasee aw ngaa dew woo xam ne kenn mënu koo jéggi kenn mënu koo jaar jàll dog nañ seen diggante xewlu suñu borom yooyu mu leen defaloon te lay tax ngaa deew ma màggaat ba sëkkuwaat bañ mën caa jaar mooy tuub xew-xew yu bari yooyu delloo si li Sëriñ Sidi Moxtaar doon digle rek yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal doon digle si jàkka yi ne saa buñ jullee ba sëlmal nañ fa saxal nañu maase ci tuub te sàkk sarax te balonte àq te yéeneente jàmm ndax ñëgg-ñëggi xol yi nga xam ne nit daf koy ëmbal moroomam te du ko ko wax te bu yàggee ca moom te waxu ko ko mu tàmbali ko bëgg a jëfanteeg moom bu yàlla maanoo ci suñuy diggante rek musiba am ndax kenn mënul kenn dara yàllaa cay jàpp wa ma tashauna illa an yasha allah rabbul alamin waaye yàlla nag du jàppale kenn ci ab safaam waaye day téye xéewal yam leen naroon a jox yi nar ñëpp ni ñuy def gone yi xëccoo dara ba mag ñëw fa ne leen yéen ñëpp yéen ñaar ñëpp far bàyyi leen ko ak man ñu nàkk yàlla noonu ci yàlla musal moo tax mu fab buntub tuub ubbi ko ne saa bu njàqare amee tiitaange am njàqare nag ak tiitaange tiit mooy loo xam ne gisagoo ko tegagoo ci sa bët njàqare mooy nga gis ko xamoo dana ci bokk feeg ngoon wala feeg suba wala déet gis nga ñu ci jaar ba jàll tiit nag mën nañu koy dégg fu sori yàlla ñu yàlla musal ci li ñuy tiit ak lu ñuy jàq jàq loo waaye nee na su boobaa li leen tax a dugg aljana te deewu faatoogu leen mooy ngeen ubbi buntub tuub na ca yomb te doon tuub gu sell ndax aljanna fii lay tàmbalee ci àdduna faatu gi ñuy jaar door caa dem topp ca bunti àjjana yi ubbiku ba ba ñuy dugg àjjana yàlla na yàlla na yeex lool te yàlla boole ci ña ci dugal moom lay wax ci alxuraan sootu tahrim ne yéen ñi gëm yàlla ñépp saxal leen tuub tuubal seen boroom mooy ni ko waroom xam-xam yi jàngale rek kuy dox ba yàgg mu ne naaj aw xal jërut ñu naa ko tegg sa tànk mën naa tegg tànkam sax te nit ñi duñ ko duñ yëg ne ta teg na ko ci ci aw xal loolu ku ne xam na ci boppam lu tax mu war a tuub su teggee tànk ba ca xalwa ku ne xam na rëccu ga muy rëccu ndax war a war jamiy def rawatina muy xalu ndéef nga xam ne day daj kapp ab tànk mën naa dajub tànk nit ñi lañ cay man mooy jàppale ko rek ñii wuti laalo diwal ko ko ca ñi naan soow baax na ca ñi naan lem baax na ca ñi naan ndox baax na ca ñi naan déet soo ci defee ndox day fut ñenn ñi fa partante fis def ci pexe mu ne dañ ko ci defle ngir mu am jàmm loolu daa fés ñi fés la wut ba mënu si lañ caa jàppalee noona ku ne sàkk ca pexe ne wéet ak boroomam réccu lam defoon te fas yéene féeg mi ngi ànd akum xalam ñu ko sëñ mag bi bind ci lenn ci ay téeréem al jawharu nafis yaatal na ko ca lool wa min shurutiha nadamatun ala ma fatahu min almaasi musjala wa an yakuna tarika alasiyaani in kaana aasiyan bila tawaani wa niyatun fas yéene li des ci dundam du ko ci def mukk ku ne xam na ni xalwa bu ma wax ku ko joggi moom diretul ñu naa ko xool fi ngay teg sa tànk moom day jàpp ne adduna sépp ay xalindeef la noonu la ñuy tuube tuub moomu nag suñu gu sell suñu borom daf koo lëkkaleeg dem aljanna te aljanna mën naa tàmbalee fii mooy xel mu dal xel bu dalee dootoo yéene kenn dara lu dul jàmm moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masa wax ne kenn ku ne ci yéen na yéene moroomam li muy yéene boppam ku ne xam na ne ku ne boppam jàmm la ko jàmm la yéene boppam waaye day leen yéene li ngeen diw li ngeen yéene seen bopp na jaare ca diw door ñëw ci yéen su desee baax na su desut diw am la mu bëggoon yéen ngeen toog moom la alquran doon wax naan wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yàlla na nu ko yàlla jàppandalal yàlla nag mi ngi tëkk bu baax a baax a baax su jamono demee ba toll fii dee yi bari jàngoro yi bari bis bu set jàngoro ji bees génn buñ ne tuub leen ñu ne ah ah murid yu yàgg yàgg ya daanañ jàngal seeni njaboot ne leen lii tuxal ndigal mooy dàq picc bu jëkk ba dugub daan baax dëgg saa ñoog suuna ak kongo saa nekk fee la su àggee ci génn ay fepp bay bëgg ba ñuy ba ñuy mboolu tàmbalee boolu dañuy yónni ay ndaw yoo xam ne dañ leen di wutal ay njommoor mu di leen wéttali ci àll bi njommoor mooy loolu loolu ñuy defar ba mel ni nit ñenn ñi di ko xoral su ngelaw li ñëwee mu jaayu picc yi defee nit ku taxaw la am na ko doon tooñ fii nit sax naan diw njommoor la ñu defee ne lëg mooy njommoor te njommoor bokkut ak lëg ñu ne gone yi nag li dàq picc mooy dàq ndigal eh boo ko waxee picc yi bari naaw suñ ne tuub leen ndax bàkkaar yi daa bari ñu ne déedéet loolu du ci dara eh loolu du ci dara ndax réew yi nga xam ne duñu ay jullit amuñu benn jafe-jafe te amuñu benn nattu bu doon loolu foofu lay ëppee ndax foofu la may ko bare waaye ñun jullit dañoo signé ak yàlla contrat loo ñu sant ñu def ko gëm nañ ne yaway buur di bum mi ëllëg day ñëw bu ëllëgee kenn ku nekk ci jëfam lañ koy atte wuuteeg pas-pas ñi ne lu way am fii ci teraanga bu ëllëgee boo faatoo day continuer boo ko tëkku jullit ñun dañoo signé yàlla contrat ba noppi moo tax lim ñuy jox daf koo teg ci ni ñu teggi suñu tànk ci ay ndigalam rek suñu koy tegg di gis lam ñuy wàññi moo tax mu fab kii nga xam ne suñu ne tuub leen mu ne eh dugal ko ci daayira boo xam ne su moom ci boppam su tuubut musiba mën na ko dal yàlla ñu ci yàlla musal nee na kuñ ne tuubal mu ne eh kooku dugg na ci daayira zaalimoon yàlla ñu ci yàlla musal loolu mi ngi sootul xujuraat ginnaaw daa ubbi buntub tuub nag fëlëngal ko ubbi bunt fëlëngal mooy tëjoo ko lu bakkaar rëy rëy lu rëcc rëcc bari bari bu jullit yi ne tuub mënu koo dindi mën na ko tuub ak sakk sarax ak balonte xaq yéeneente jàmm mën naa dindi lu nekk ndax dara gënta rëy ci suñu boroom wutal ko moroom wutal ko doom wutal ko soxna te yàlla nee ci alxuraan suratul anfal ñoo ñu wutal yàlla loolu ba gëm ko ba nangu ñu rey leen ca bis bu ñu wàññikoo ne yàlla kenn la yàlla jégal na leen la weesu yàlla moo gën a fiir ñëpp moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon yàlla ku fiir la ñu ne ko yàlla ku muy xëccoon ku muy gërool bay fiirante mu ne su gisee ab julit jaar yoon moom war fa jaar te nanguut a tuub la kam koy fiiral mooy sawara ndax jaar na yoonu sawara woo xam ne bu ko wàccut ca la jëm te yàlla bëggu benn jullit dem sawar inna allaha yaxaar wa qiila kan la yàlla di firanteen mu ne an yatiya al muminu maa xarama allah te tuubul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bis bu set bu jant sooyee yàlla day tàllal loxoom waxin la ñun joxe ak saafonteeg nit ak maslaak nit lañ ca xam mooy tàllal loxo yàlla bu guddee day tàllal loxoom ne ana kuy tuub lim defoon ci bëccëg bi ma jéggal ko ba bët set bu kenn waxul mu bankaat mu tàllal mu tàllalaat loxoom mu ànd ak jant bi fenk mu ne ana kuy tuub la mu defoon ci guddi gi ma jégal ko ko loolu la dëkk yàlla nanu yàlla jégal moom la Seydina Omar ne yonent bi nee na wax na ko ko ñu bari fekke ko ne ko bis bu set moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax baat yi lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon te mooy ki yàlla ne woon toppatuñ la dara astaghfirullah wa atubu ilayhi Seydina Omar nee na yonent bi nee na ko bis bu set danaa ko wax lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon astaghfirullah wa atubu ilayhi ku toll ni yonent bi nag gannaaw moo jàkkaarloog suñu borom di ko répété ba mu mat juróom-ñaar fukki yoon lu mu néew néew par bis akthar al aktharu la xadda lahu waxaluma waxaan waxaalewuma nag ñun ñi nga xam ne moom du ñenn ñun lu dul ay jaam jaamaat yoo xam ne boo ko desee tekkiwuñ dara sax ci kanam suñu borom lii ab xikma la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la benn takk der policeman boo xam ne dafa liggéey ba retraité daa jël lam doon liggéeyee waaraata ci ndax ba mu retraité dañ ko fal imaam muy wax muy muy waaraate di xutba bis ba mu njëkkee xutba ca la ub carnet lépp carnet yépp moom ku la ku mas kuy xutba mbooleem li ñuy xutba ba fa yonent bi jógee ba fii mu nekk tënk na ko ci lu mu jëlee ci la mu doon liggéeyee moom misaal ko ci diggante nit ñi ak seen borom dafa wax ne yéen nit ñi ku ci permis am jeexati na ko dem yeesalaat ndax ku xam permis la policeman la woon policier la woon permis bu jeex nag ak bu ñu yeesalaat moom tuub la ko def tuub moom la tuddee permis fii daa war di yeesa ka yeesaat dal ne ceinture der gi nga xam ne ku dugg ci oto da ko war a takk wala su ko tëkkut bu taseeg ñi koy seet mën nañ ko caa fayloo alal na def dargoogee muy ragal yàlla taqwa xisama taqwa vitesse xel wu metti woo xam ne dañ naan la li nga doon daw bari na di la ci fayloo it na wàññi aw xelam ci mooy suñu boroom daw jëm ci mooy suraatal maasi saa bu xëyee itam na xoolaat pono yi nga xam ne bu baaxut oto du dem pono ya na doon yéene lu muy def na jiital yéene teg ca lam cay teg innama al amalu bi niyat itaraatu niya moteur bi itam entretien moteur bi it moteuru oto daf koo jël daf ko xolub nit lii tax moteur di baax muy di ko vider ak di xool ndox mi ak di xool courant bi ba xam lu ci ne ma ngay def dem la fi war a defam dem nee na bis bu set na xool xol bi entretien ko ba xam ne ndoxam dem makinat al qalb nadifu makinat al qalb tableau yi koy wan li mu war a def ci télé bi li mu ci war a def it ak yoon dëkk bi mu jëm ñaata kilomètre ci des isharaat yooyu na ko na ko jàppee alquranul karim lu muy def na laaj lu ci alquran wax isharaati alquran na ko def isharaat ala isharaatu tariq day topp ligne continue bi wala discontinue bi it mat naa bàyyi xel ndax léeg-léeg mu weesu oto fu mu ko wër rombe ña koy xool ne ko kar ne ko jaar nga ci rëdd woo xam ne bu doon am miir doo ko doo ko bëtt di jàll bu doon jaar it doo ko romb doo ko jéggi di jàll mu ne ligne continue ak discontinue na ko def muy ta na def yoonam muy diine diine ju sell yii yépp nag su fekkee daf koy dénk nit ñi di yeesal permis bi saa su nekk te mooy tuub di takk ceinture de sécurité mooy taqwa di dox daw ndànk te mooy daw jëm ci ay mooy di xool pneu yi te mooy yéene di entretien moteur bi te mooy xool di xool tabla yi te mooy alxuraan di xool discontinuer ak ligne continue ak virage ak double virage muy diineem ndax nee na ci kanam tuuti am na check point mooy barrage police boo xam ne ku fa dem yóbbaale fa luñ ko war a bindale contravention contravention bii muy wax moom sawara lay doon la koy faye ci yàlla nañu ci yàlla musal fa inna amaamakum nuqtata taftish lu mu yàgg-yàgg yàlla dana ko taxawal seet ay mbiram taftish mooy alt douane ak alt ñi nekk feneen mooy zul zul alt police alt gendarmerie boo gisee tabla bi moom bu ñu la arrêté bu ñu la arrêté wu lépp da ngaa war a taxaw ginnaaw tabla baa nga sampe soo taxawee nag sañ la ne la wàcc leen oto bi yéen ñëpp ñu wàcc ñi ci dugg ñëpp yal nañ dem yal nañ yal nañ yor loxo yi neen rek ba bu ñu xoolee seeni poste duñ ca fekk dara su boobaa fee lañuy taxaw ñoom dañoo dugg ci oto bi képp yi dem waaye su fekkee fekk nañ ci biir oto bi luñ wërta fekk ci oto bu ni mel ñu duggoon ci oto bi te jotewuñu ak waaye gi dara rawoon seen yoon nekku ci moo tax mu doon wax ak ki dawal oto bi ki dawal oto nag mooy nit rek saa bu yàlla xoolee xol bi gis mu xumaag yàlla nañu ci yàlla musal mu xool digganteem ak taqwa mu xumaag yoon wi ràpp lool mu xool digganteem ak tuub permis périmé bu yàgg wala oto bi muy daal wërta daal catégorie bi wala ñu laaj ko tableau yi xamutul tableau xamut yoon yi mu jaaroon national wala départemental la nee na su boobaa muxaalafa am na muxaalafa nag bu dee Sénégal wala adduna yomb naa fay lool ku yore 1500 800 la tàmbalee 1500 3000 6000 daanaka yam fa yomb naa fay waaye contravention boo xam ne dañuy bindal dañuy bindal kooku këyit nangu permis ba gannaaw baaxul fourrière oto ba gannaaw oto bi pneu yi baaxul signal yi baaxul isharaat yi mën naa doon ay signal sax wala ay feu rouge waaye li ne ci oto bi moom dara baaxu ci su boobaa bu ñu ko bindalee contravention fa may fayee ji imam bii nee na sawar la yàlla nañu ci yàlla musal kon xikma baalixa moom la jëfandikoo ci waaraateem woowu sukkandiku ko ca la mu doon liggéeyee yàlla na fi yam te bu dee ña ci seen bakkan war a desit yàlla bu mu doon ñun ñi ñëpp ak ñi koy dégg ñii dawalit am na mag mu waxoon ak ñoom am na ñu leen di joxoñ waaye bu ñu joxoñ kenn ku dul suñu bopp rek am na mag mu waxoon ab dongaam bu mu yaroon jàngaloo ji ko oto ba mu ñëw ne ko breveté naa booba brevet moo am ay années cinquante baatu permis de conduire amagutoon breveté moo amoon nee na kilifa ga ne ko ma seet mu xool ko mu ne ko photo bi porte la bi yaw de mu ne ko waaw mën a mu ne ko ñi natt nañ la de ba wóolu la jox la ko mu ne waaw waaw jënduma ko de arrangé wu ma ko dama ko lank bu jëkkoon ñi doon jàng oto buñ lay taril carnet boobu ñu bind code de la route dañuy mel ni kuy tari Fatiha am na si ñu ko mokkal lool tax te ma ku lañu woon sàbbi xis ma ak suuf te mu loolaa gën a bari waaye loolaa leen ñoroon booba yàlla yàlla mosoo ci jógu càggante ba di la waxal mbooleem yi doxal oto bi lépp lu ci nekk na mu tudd ak fa mu nekk te boo leen taree loo fàllax ak naa si duñ ko man waaye xewoon na kooka nag kilifa ga ne ko kaay ma dénk la waaye la mu ko dénk tënk na mboolem tabla yi mu doon jàng ak signalisation da ko ne sooy doxal oto da nga naan déj diju na nikk jàkk na nikk téye ak sa yaari yox ni ñuy jàppe baar bi daanañ ci taawil naan neuf heures rek neuf heures et quart rek ni ñu ko jàpp su fekkee daa yemale ay loxoom nii mooy neuf heures et quart daa jàpp ci pegg bi jàpp ci pegg bi loxo yi tolloo nu mu ko jàppee ci kaw ak morom ji am na nu mu tudd mu ne ko da nga naan nikk jàkk jàpp ne ne jàkk fi nga jëm fu mu ne tacc nga ne tekk bu ne yang nga ne yow soo agsee ci lunk lunk bu yoon bi mooy virage nga teggi sa tànk te màcc jëm ci sa ndeyjoor te ku la dab bu ne lee piip mag yow ko man nee ko yaa ma man demal bàyyi ko mu dem fu mu taxaw nga fekk ko am na ñu see dal naan daw ndànk dal ndànk kuy daw ndànk du dal fenn kuy daw ndànk du daw fenn du dal fenn moom kon bu fekkee ñooñu dañ see am wàll nañ jël loolu yóbbuloo ko daanañ bind ci oto yi bu njëkk bu kenn wax ak safoor bi bu dee ci oto yi naar yi ñu ne bu kenn jox bu kenn joxlanteeg safoor bi baxshiis baxshiis mooy mu ne laaj mu ne paas ñu di ko jox paas mu ngi delloo ndax diggante bi muy delloo ak ko xoolaat ñaata la ko delloo rek li muy daw taxaw li muy yor moom taxawul dafa dafa gaaw kilifa googu loolu lay tëjee moo ne moo xool oto ba yàgg oto bi romb ko mu ne nit moo moo moo dalam xel loo xam ne bopp baa ngay tàkk geen ba di saxar nga ne ci diggante bi sam xel dal kenn gën la dalam xel waaye yal na yàlla aar tëli bi ak ñi koy jëfandikoo te defal barke ñi ciy liggéey ñëpp ba seeni xel dal ba ñuy dem ci jàmm di dellu si ci jàmm te ñi jot a dem ñëpp suñu borom yërëm leen tam gëj fi lool te soree lool bu munta nàkk te ñu def loolu ab yóbbal yaxfirullahu lana